jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokki senegal ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum yarum ginaar ci Sénégal ñoo ngi ci njàqare ak tiis ñoo ngi ci tiitaange te lii nag président Macky Sall war na ko yëg mu jëm cee wut saafara ministre bi nga xam ne tamit moom lañ dénk wàllum élevage. war na see xar tànk tubayam waaye taxawaay bi ci war a taxaw ba léegi fësagul ministre bi ñu dénk wàllum emploi moom tim war na see xar tànk tubayam ndax secteur avicole secteur la boo xam ne ñi si nekk ci ay ndaw bari nañu lool waaye jamono ji ñi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllum yarum ginaar bu ci état bi jógul musiba ma ba kumba mën naa am li ko waral mooy ay ndawi réew mi ñoo jël xaalis bu takko takku investir ko ci wàllum ginaar waaye jamono ji xontu amul xont bi ñuy xontee ginaar yi jamono ji ci qualité ak ci quantité amul ñi ko jot amakus néew li ñu koy jaayee jégg na dayoo néewaana fooy dem ci biir Sénégal te ñi yar ginaar jamono ji tiituñu ñoo ngi waru xontu mënuñu ko gis léegi nag dañuy faral di wax ne tungani du teew ñuy nataal yéen ñépp xam ngeen sëriñ xaadim mbàkke mi nga xam ne dafa yëngutu ci wàllum yarum ginaar euh, aviculteur la yëkkati na ay kàddu alerté ndax sëriñ Xaadim Mbàkke dafa bokk ci association des aviculteurs indépendants du Sénégal nee na musiba mën naa am su dee état bi waxu ci ndax ñoom xaalis bu weex tàll lañu investir ci ginaar yi investir nañ ko ba pare xontu amul su amul nag xam ngeen la say topp mooy ginaar yooyu dee ginaar yi nag bu dee ay millions yi millions yi millions yi millions yi xaali perte mooy am ci xaalis kon euh, ñu déglu sëriñ Xaadim Mbàkke euh, ci li nga xam ne moom la wax ci secteur avicole ak jafe-jafe yi nga xam ne moo ci nekk ak jamono ji seetaan gi nga xam ne moom la ci nguur gi seetaan te secteur la boo xam ne ñi si nekk ci ndaw dañoo bëri te état bi amul sañ-sañ amul droit di seetaan ay doomu réewam yoo xam ne ñoo ngi ci guddi gu bët setagul sëriñ Xaadim Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax ki nekk ci kàddu gi nag mi ngi tudd Xaadim Mbàkke nekk membre ci association des aviculteurs indépendants du Sénégal ñu yëngatu ci wàllu abiculture waaye nag jamono ji ñu toll ñu ngi ci jafe-jafe yu méttee méttee méttee métti ñu ñi xam ñoo nekk secteur bi jafe-jafe yooyu mooy ñu mën a am aliment boo xam ne danañ ko mën a jox suñu ginaar yi ngir ñu mën a dund jamono ji Sénégal gépp da nga koy wër wala kenn ku nekk ci zone bi nga nekk da nga koy wër ngir am aliment doo ko mën a am doo mën a am aliment ci wàllu qualité doo war a mën a am doo mën am aliment ci wàllu quantité gis ko sax ngir mën koo jox sa ay ginaar mënatoo ko def tey dañu investir xaalis boo xamee ne ni xaalis bu bu bu bari la ndax képp ku xam secteur avicole xam ne investissement bu mag lay laaj ñu def ko ngir mën a euh, participer ci développement bu réew mi waaye jamono ji ñu toll nii lu ko gën a wóora di yàlla sakku ndax investir nañ suñu xaalis ba noppi te mënatuñoo am aliment boo xam ne suñuy ginaar mën na koo dundi jamono ji ñu toll benn saako aliment pour nga gis ko ñu ko jot am ñu ngi ko jaay benn saak vingt mille francs benn saak aliment euh, ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk te investir ci amuñ solution il faut ñu def ko ngir suñuy ginaar mën a dund bu suñuy ginaar dund dañuy dee buñ amul aliment buñ lekk dañuy dañuy faatu am na ci ñoo xamee ni ay ginaaru pondeuse lañ amee mooy ginaar yi nga xam ne euh, dañoo dañuy nen jamono ji aliment croissance nga xam ne moo xaw a euh, yomb am sax mooy aliment bi nga xam ne ginaar yi moom lañ lekk ci croissance am na ñoo xam moom la ñuy tojal seeni ginaar ba mu mokk ngir ñu mën koo lekk ngir baña faatu ci jamonoy korite gi amoon nañ benn déficit ci wàllu poussin yi amoon nañ déficit maanaam manquement wu cinq millions ci poussin loolu moo waraloon ci korite gi ginaar manqué lool ndax carton poussin mi ngi doon jar vingt deux mille cinq cent te ci jamonoy korite gi dem na ba bi ñu waaj dugg ci koor gi dem na ba trente cinq mille francs benn carton ki nga xamee ne nag moom moo yor wàllu élevage gisuñ benn taxawaay boo xam ne taxaw na ko ngir sauver secteur bi ki nga xam ne moo yor wàllu emploi gisuñ mu taxaw ngir sauver secteur bi ndax ñun ay xale yoo xam ne dañuy investir ci wàllu poulet di ci liggéey investir nañ ci wàllu poulet di ci liggéey amuñ ci ndimbalul état li ñu soxlaa ci moom rek mooy mu créer ay conditions yoo xam danañu mën a permettre ñun ñu ñu liggéey liggéey boo xamee ne liggéey bu bu mucc ci ayib la kon daal Sénégal mi ngi jëm ci yoon woo xam ne dootuñ amati ginaar ci biir réew mi fii lu mat quinze jours rek bu fekkee ne mbir mi soppeekuwul Sénégal dootul amati ginaar Sénégal yi dootul amati nen te boobaa loolu pertement économique bu mag. lay jur ci biir réew pour nga am euh, ay ginaar il faut nga am aliment pour nga am aliment il faut nga am matière première yi lu jëm ci mboq ak soja mboq ak soja kenn mënu koo am ci biir réew mi entreprise yi nga xamee ne entreprise yu mag lañu woon di produire nga xam ne boo soxlaa aliment ñu jaay la entreprise yu ñu bari dañoo am arrêt de production nga xam ne ñoom liggéey sax defatuñ ko ndax amatuñ matière première kon daal dañuy demander état bi mu réagir balaa làmbaye ñaaw ndax investir nañ suñu xaalis suñu diggante ak banque yi ñu ngi am moom problème depuis biñ tëjee frontière yi ba léegi wàcc woon def état d'urgence nga xam ne mootuñoo jaay suñu ay produits yu ñu amee buñ ci doolee nag ma bañ am aliment boo xam ne nii ah, dañ koy dundale suñuy ginaar dañuy dugg ci jafe-jafe yoo xam ne nii. Euh, duñ xam fan nañ koy fan lañ koy lijjantee kon daal ñu ngi naan état bi mu taxaw ci te taxawaay boo xam ne ni ñu ñu gën a mën a wàññee procédure yi ngir ñu mën a am produit à temps ngir ñu mën a dundal suñuy ginaar ngir ñu mën a taxaw taxawaay boo xamee ni euh, danañ danañ mën a satisfaire Sénégal ci lim soxla ci wàllu nen ak lim soxla ci wàllu ginaar kon daal situation bi foofu la tolluwaa waa bi ngeen xam ne fii ak diggante bu néew rek bu fekkee ne solution amul Sénégal moom wàllu ginaar ak wàllu nen dana ko tàmbaliwaate jéggaani te boobaa dana metti lool ci consommateur yi te nag du ci suñu bëgg-bëgg ndax suñu sañoon sénégalais bu nekk ñu jox ko ginaar ni mu ko soxlaa nen ni mu ko soxlaa waaye nag du ci ñun ñu ngi ñaan état bi mu taxaw ci jël responsabilité am ngir secteur bi bañ a daanu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw gis nga lii nii mooy suñu lenn ci suñuy ginaar gis nga ko benn. saako aliment bi moo fi nekk fii baleen baa gis nga yii it problème aliment lañu amee nga xam ne presque pare nañ pour daanaka diggante bu gàtt mënatuñu am aliment lii moo fi des ci stock ngir aliment bi yii ginaar yi nga xam ne daanaka ñu ngi ci fas terminale problème bi ñu amee it mooy gis nga ko fii dara nekk fi aliment amut gis nga ci jafe-jafe yi moom ci lañ nekk arke Serigne Babacar Sy ku ne méttiwul rek dalaa dal lii tax Sénégal kenn bëgg fee investir xoolal bii investissement nga investir say ginaar yar leen ba mu toll nii aliment boo xonte nar la koo xañ léegi ba kañ kan mooy jël say millions di ko investir ci mim réew wóorul Sénégal investir bi risque la moo tax ku ci yor sa xaalis war koo investir dama nga duggee ko ci gaal dem sa yoon parce que lii wóorul man maa doon wax bu kenn dem bitim réew toog leen fi ma ne leen fee liggéey réew moo xam ne aliment boo xam sax mënoo ko am ba pare ñun réew maa ngay liggéey lii lii yar tool yi nga fere ci ñaar ci xaalis léegi instant yi da di xoolante ak ñoom côté yaa ngi nii masuwaar yaa ngi nii nga yar sa xaalis bëgg jënd gisoo loo jënd lii donte la dimbali woo ñu sax yow ma gisaa dimbali woo la nga man ñoo yombalal sax aliment ban man koo gis ñun man koo jënd ñun buñ ko gisee rek amul problème